doomi rew mi maa ngi leen di leen ziar di leen jox seen waaj di leen di rafetlu seen taxawaay seen bëgg réew mi seen détermination seen taxaw temm ne incha allahu rabbi ay caaxaan moom ci mim réew bu soobe yàlla daa ngeen ko dakkal ñi ngay bu baaxa baaxa baax kenn ku nekk ci yéen bu ci kenn parce que taxaw bi ngeen taxaw am na solo trop bari na lu yi ni maanaam taxaw bi ngeen taxaw la waaw bari na tey ji fu ñuy séentoo ci réew mi taxaw bi ngeen taxaw la kon taxawaay boobu am na solo yokku leen seen taxawaay boobu lu ngeen ci man yokku leen seen taxawaay boobu taxawaay bu am solo la am réew buñ ci nekkee mu nekk réew moo xam ni dañoo woote ne dafa war a transparence réew mi daa war a transparence ñépp yam ak ak yelleef fi ñu yam ci ñu jàppale askan wi taxawu askan wi xool seeni bëgg-bëgg dox ci seen bëgg-bëgg yittee askan wi ñu nekk ci kanam mu jëm ci kanam mu baax réew tegu ci ak leer nit ñi ni droit leen lépp loo xam ne tey ñoom ñoo ko moom fexe tey ba askan woowu gis ci seen bopp ñun loolu la ñuy xeex te loolu insha allahu rabbi am ci ndam dongay tax dootu leen ñu gis sunu yenn taxawaay yi di ngeen ñu gis de xaj na ci yeneen façon mais sunu taxawaay bii ngeen di gis naan ñi dañoo ñaax ñoo reew ak ay nitu fitna la ñoo kenn barke arxuraan tànk sunu àq ak sunu yelleef ñu ngi ko bëgg cee jot ngeen lànk ne tey jii ni ngeen ko ci di seetaan seeni xol de tàng tey jii ñuy ñëw naan leen dégg ngeen diw li mu wax ci yéen lu ngeen réew mi lu ngeen ci bañul pour mu baax lu ngeen ci bañul tey jii maanaam pour réew mi jariñ ndaw ñi ñun bañuñu ko ci tey am taxawaay boobu pour réew mi jariñ ñu parce que loolu moom mooy dëgg loolu lañ bëgg dañoo bëgg réew mi jariñ sénégalais yépp sénégalais yi ñu jox leen seen ak ak seen yellef respecté leen loolu moom mooy yoon jàppale leen askan wi xaar leen tuuti daa am benn kii bu ma bëgg kii mais ba tey gisaguma ko avant may live bi sax ci tiktok bi laa ko laa ko laa ko waroon a laa ko laa ko laa ko waroon a kii xaj na li ma njëkk a taal facebook bi la rek ñëw rek ma nit parce que daa am loo xam ne tey jii dinaa ci ñëw ci kanam réew mi dañu leen a war a respecter nit ñi respecter leen nit ñi pour Sénégal li fi nekk ci ay problème dafa bari gis naa nag léeg-léeg ay patriotes yu bari ndeysaan seen taxawaay rafet na mais dama leen di gis ngeen di wax ay wax yoo xam ne bu ma sañoon de ngeen ba ko te continuer rek ci li ngeen nekk muy ay ministre diw fexeel jokkoog man nangam sàngam nangam xam naa ko diw nii diw naa ministre diw nangam sangam dama ni bu leen benn ministre woo bu leen benn DG woo li ci dëkk bi ministre yeeg DG yee leen ko gën a xam fop ñaata at ñu ngi ci opposition bi ñaata at ñu ngi fi ay live ñaata at sénégalais yi ñu ngi taxaw di def ay vidéo tey mi lu nekk ci réew mi dama ni Sonko leen ko gën a xam lu xew ci trans port bi ko gën a xam suuf si may dénoncer Malika ak actuellement Moussa Balla Fafana mi ministre de urbanisme moo ko gën a xam na leer ci sénégalais yi lu xew ci réew mi xam nan ko léegi nag liy problème bi maanaam xeex yanu nekkoon bërki démb ak démb ak démb ba tey nan ci nekk ba suba ak ba ginnaaw suba lan doon dénoncer saafara ci nguuru Macky Sall nguur gu bees gi du tee dañuy continuer di ko dénoncer parce que lolo tax goné yi voté leen massivement ngeen jël pouvoir tour amul ben laka lakal kon lolu nono amna ni yaakar ni tay ji ni manam di ngeen ci dox ba mu mat amna ni yaakar ne di ngeen ci taxawu sénégalais yi kon nak lolo tax ñun lañu tay ji and ci ak yeen ba ngeen fallu it duñ ko bayyi parce que nekkuñu fi won di wax rek pour ngeen fallu ñu tok di nopi dedet réew mi dafa am ay bànqaas yoo xam ne dafa am ay jafe-jafe il faut que ñu continuer di ko dénoncer dénoncer ko nag tax déedéet man littoral bii may jooy Malika sunu àq ak sunu yelleef gii sunu tool yi ñu bëgg a bëgg a yàq mbëbës jafe-jafe yii mu indi Malika mën naa ni jafe-jafe yooyu mbëbës yii moo mag Macky moo mag ab lay jafe-jafe yi mbëbës yii kon dafa nekk gouver affaire de gouvernance boo xam ne gouvernement bu ñëwee moom moo war a xool li askan wi bëgg li nga xam ne askan wi bëgg nañ ko ci seenu dund li nga xam ne askan wi jàpp nañ ne daf leen di lor tey jii nii maanaam ñu taxaw saafara loolu ba askan wi dootuñu am tiitaange ci loolu dinañ continuer di ko wax bokkuñoo nit ñi nga xam ne nag dañoo fas yéene taxaw tàmbali gouvernement boo xam ne un mois amagun ko ngeen bëgg taxaw nangam sàngam loolu bu ngeen ko fi defee ñun ngeen di am fii dinañ leen may soixante douze heures yu saf-sap ci laaj tay ñu teg la fi jambal la 1 mois dinañ ko def ay tiaxan baxul deg na Ahmed Susan Kamara imbécile bi taxaw Sergei dund gu Ahmed Susan Kamara Dundugu gu seer ñi ko ji yow pouvoir bobu nga nekkon nan ay man nan ko wañi ba 200 ba ay ba kilo ciep 250 man na ne alal gi nga xamne dan nan ko sacc di len ko jox di len ko fayele ay appartement di leen ci jox ay oto tey di leen ci jox tey ngeen di dem ci soirée yi di mayeeg lu kenn xamul alal jooja bu buñ ko récupérer immeuble yi nga xam ne sàcc ngeen ko ci dëkk bi sàcc alalu réew mi tabax ci ay immeuble buñ delloo alal jooju réew mi ba noppi incha allahu rabbi dinañ jàppale commerçant yi commerçant yi jàppale gouvernement bi ñu ànd jàppale askan wi dund gi yomb ci ñëpp incha allah lool dina am mais balaa am nag tàcc alalu réew mi ngeen randal réew mi nga xam ne jàpp ngeen ko di ko caxat-caxatee lu ngeen def ko fi tey jii ma askan wi dañoo taxaw pour mu delloo ci seeni loxo loolu na ngeen ci bàyyi xel seen tëbaka dal gi yépp jaru ko teey leen rek ku ci yoon war a fekk ba sa biir kën koŋ la yëkkati la ne la jugal ñu dem képp koo xam ne amoog yoon lu tax tey ñu war laa koŋ di la convoqué naan la yaa fi wax lii yoon séqu koog yow transparence la ñu wax justice bu tëddee njaaxaanaay amatun justice boo xam ne président day toog paleg yu kenn xamul Sonko loo ko mas a mën a waxit jomaay loo ko mën a waxit du ma du mooy toog pale tey jii nii maanaam naan ay ja arrêté leen ma kii lu ci nekk tey am na bànqaas boo xam ne teg nañ ko jàpp ni lii dëgg la goo xam ne dafa war a mën a dox Sénégal boo xam ne tey toog nga wax loo xam ne tey bokk bokkut ak àq ak askan wi tamit bu la yoon waree woo dalay woo bàyyi leen ay tappale yéen a yàq réew mi yéen a yàq mi gis naa mootloo di wax gis naa patriote yi tafal ko soixante-douze heures dama ne soixante-douze heures mootloo yi na saf sàpp téegal leen ndayam téegal ndayam ba mu xam ne tey jii ñi tax courant bi seer ñi tax ceeb bi seer ñi tax internet bi seer li tax tey suñu dem beeg suñu dikk bi suñu transport bi luñ ci dugal tey gaa yi dóor ko ñoom Modou ñii biñ leen invité pale amul kenn ku ci toog wax jafe-jafe askan wi lu may naan président dinañ la jàppale ak ndaw ñi nangam nangam yéen ndaw ñiy génn di manifester toog leen seen kër yi parce que ñii tax ngeen di xeex seen doom yi gisoo leen ko fii nangam sàngam ñun dañoo xeex ngir doomi Ousmane Sonko nguuru ñun dañoo xeex ngir doomi Basirou jamay fay nguuru ñun dañuy xeex pour ñun ñu nguuru ak suñuy doom nguuru loolu looloo tax suñuy nawle ñii seen bakken des ci ñii seen tànk damm ci ñi seen loxo damu ci ñi ñu ñàkk ci seen bët ñi ñàkk ci seen alal ñi ñàkk ci seen liggéey ay tapale baaxul mudlo seen yëfu tapale yi ngeen nekke baleen ko nan lamb ji ay biram su lay lan ko jox ci pétrole beeg nangam antoine jom moo li lii biram su lay antoine jom la remplacé ministère bi mu yor antoine ndax antoine jom bim yoré ministère bi yow modlo yow ubbi nga sa sarum nday bi yak giri bordeaux Dan ne antoine jom pétrole bi nga xam ne sénégal am na ko tey yow ñu euh, ñu def la euh, ñu ñu tabb la fa yow Antoine Tour di dugal ci làmb ji ñuy mën a soxaliku ngeen jàppale ñu ci wàllu sponsorisé ñu jàppale ñu ah ndax taxaw nga wax ko te dem nga ba pale ay caaxaan baaxul yii ngeen bëgg a def nag duñ leen ko may tey duñ leen ko may ginnaaw suba ñun demuñu RFM demuñu ya TV demuñu des médias demuñu Walfadjri demuñu RTS demuñu fenn ci sunu Facebook yii la ñuy toog sunu TikTok yii lu ngeen def ci réew mi ñu jàkkaarloog yéen Dakar seen ndey ba ngeen nekk nit ñu dagg ko envoyé leen ko dugal ko ci YouTube bi seen mbokk yeeg seen am di jàmm yi ñëpp di ko seetaan te cottu ndeyam mënu leen ko ci. parce mënuñoo bokk chaque jour ngeen di ñu naqaral di def loo xam ne askan wi gisu ci seen bopp yéen loolu ngeen dëkk ci réew mi te loolu nag il est temps mu dakk ci réew mi. parce que ay saay-saay ngeen ay vayu ngeen ay laas ngeen doxu leen ci luy dimbali sénégalais yi loolu nag daanu ko xeex buñ ci amee wàllu amul parce que dund la goo xam ne dee ko gën ndegam dund la gu dé gën nak ñu tax dañuy jamar lu bam saf lu ñu am dañ koy jël parce que baxu leen ci askan wi baxu leen ci société bi yeen lamb tay ji yéen a gënoon manam ci bin ko fi taxawale mambay ñaan parce que li top ci yeen ci jeunesse ta bay ñaa rencontrer na leen rencontrer na tafatine ay ñom khadim ndiaye ak ay ñom ballagay ay ñom modlo yi ñom ñi ñepp lan rencontrer ba tafatine dem bawal ak ay ñom modlo fu ne dem nan fa tay di outil souf tay ji ni manam ta amna lu ngeen jotta mos ay tiaxan baxul tax tay ji la ngeen jotta mos mo tax tay ji ba nga xamé ne tay projet dagg déyul yàbbul ak seen carburant bi ngeen lakk dugg ci àll bi di wuti ci suuf ci seen dëkku maam yi tey jii nii ba fàndeen Modou dem na fa dem ngeen fa moo tax Prodac googu bi nga xamee ni dem ci dara kenn mënatu cee yëy yàbbi ci yéen parce que mos ngeen ay caaxaan nag baaxul réew mi buñ leen ko waxee ni leen dina soppeeku ba seen waxu tappale yi ngeen ngeen bàyyi ko na ngeen ko gëm na ngeen ko gëm de daañu wax a wax a ba seen bàyyi fin rof seen seen xuuxal jeeg yi daañu génn ndayam seen xuuxal seen yaay yi maire yi xuuxal maire yi yi paa yi denc ndayam ci ron armoire yi dañ koy génn ndayam yi nga xuuxal seen bàyyi parce que seen bàyyi gaawu ñoo tàng léegi maire yi mën nañoo toog mois duñ xuuxal seen bàyyi xuuxal seen bàyyi yooyu maire yi denc dañuy génn ndeyam teg ko fii bele fete yi seen caaxaan yi ngeen nekk ci réew mi baleen ko nawloo leen seen bopp nawloo leen jeunesse bi topp ci seen ginnaaw nawloo leen sénégalais yi nga xam ne tey jii am nañ cofeel ci yéen ngeen nekk ci réew mi tey jii ah ñu chargé leen plateau bu ne tey ngeen toog fa naan gouvernement bi li ñuy xaar ci ñoom yéen kàtt leen seen ndey yéen gouvernement bu bu bu bu yow yow Modou Lo Siré Dia bi ñu koy def directeur de poste. yow modlo Lo si rajo ñaata la la daan jox ci alalu réew mi bi mi nekk directeur bu poste yow modlo si rajo yag nga def ay lambu muy jël ay millions di la ko jox alalu sénégalais yi pendant sa temps parcel googu nga dëkk da am plateau médical bu baax sa ciottu nday ah balier bi ngeen dëkk yow modlo Lo ay ballagay ba ci giri Bordeaux gi Fass gi ngeen dëkk tay yow giri Bordeaux hôpital Abbas ndaw bi tax amna plateau médical bu baax ah ndax seen di nemmeeku malaatal fan googu ci seen wet ah jàppale leen askan wi ay caaxaan nag na ngeen ko bàyyi xam ne fii askan wi amatuñ fi complexe kii que ce soit du ko yëngu ci biis bi du artiste du sëriñ du kenn koo xam fii réew mi Sonko lan fi am complexe mi nga xam ne depuis mille neuf cent soixante sunu maam yeeg sunu baay yaa ngi fi nekk réew mi nek ci ay tapal mi demul cëng dikkul mbay laar kenn taxawul tay ji mu liggey ci administration bi fukki at ak juroom wallahi seen fukki deureum musuma ko sàcc liggey na fukki at ak juroom ba Macky Sall jël ndax sàcc gi nek ci réew mi musuma sàcc seen fukki deureum réew mi be am complexe billahi wallahi wa Usman Ousmane Sonko la du seutu Serigne Bamba bu deung du seutu mam limaamu bu deung fi kun fi am sa Ousmane Sonko la maa ngi gis Moussa Fassi bu doomu junior ah naan ay simple ah, ah, vulgaire violeur nangam sangam tay yow gàcce warna na laa rey moo tax gàcce reyu leen yéen gàcce bu leen doon rey yow ak ku mel ne Mansour Sy jamil ñi ak ñi ànd ak yéen bill dootu leen jël ab micro toog ci kanamu askan di wax Mansour Sy jamil téegal naa fi ndayam guddi téegal naa fi ndayam bëccëg te lépp nag mu ngi koy dégg de mais taxul mu ban xam ne ñii duñu ay nit duñu ay nit ay nit lan yoo xam ne amuñu dignité amuñu valeur xamuñu lan mooy culture Sénégal xamuñu ko il faut que ngeen taxaw population bi nag jàppale leen sunu zircon bi sunu phosphate bi sunu marbre bi sunu calcaire bi sunu gaz bi sunu thorium bi na ngeen ci taxaw ba mu jariñ Sénégal xaar seen tappale yi ngeen nekkee baleen ko Mansour Sy Djamil yow yaa ñu gën a bett yow yaa fi njëkk a taxaw gëmloo Sénégal yépp Macky Sall rapport de force ko fi mën a jëlee ah ndax bi nga seetee Macky Sall mun la yow sëriñ bi yow mënoo am pepp am pépét li may wax père Ousmane Darame mi père Ousmane Darame mi sunu papa la joo xam ne la yàgg naa ñun ci xeex bi taxaw ci sunu kanam taxaw ci sunu ginnaaw buggul dara metti xale yi barke arxuraan kenn gënu koo nekk xaafisul alxuraan surtout Mamadou Lamine Daraame la seen maam boppam mu nga sa France ñu dugal ci musée yi te ñu war ñu koo indil Sénégal ñu suul ko suufu Sénégal parce que réewum Sénégal la doon xeexal Afrique la doon xeexal. lu ñaaw am na murit yu bari yàq nañ ko lu ñaaw lu nekk per Ousmane mii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xeex bi bu leen yaakaar ni xale am nañ ci ñu maaseeg seen bàyyi am ci ñu maaseeg seen maam yi nekk ak ñoom fii guddeeg bëccëg lu xew ci réew mi te mu ump ñu am nan maam yu ñu kon lu xewoon démb am na mag ñu nu ko nettali barke alxuraan lu xew ci réew mi rek am na mag ñu nu ko nettali dara ump ñu ci réew mi xam na lépp looloo ñu may fit nag looloo ñu may fit looloo tax yàlla dëgëral ñu da ngeen delu ginnaw ci ni wala ngeen delu ginnaw ci na wala billahi seen tadi dana tang jeur parce que daa ñu téegal seen nday ngeen diko ko dégg mu leen di naqari mënu leen ci diko ko dégg mu leen di naqari ñu ci dara seen mbokk yi di dégg mu leen di naqari ñu ci dara parce que li ngeen di def ñun ñepp a koy dégg yow Mansour ci jamil yow yewi askan wi yow amon nga fa place bu deuguer lan motax nga jugge yewi askan wi tambali di khas Ousmane Sonko di khas way yewi askan wi lu kenn xamul jitu politique da tax tay ji ndaje mu def jital la ah dina jitu ci politique nak yow bo ëppoon Ousmane Sonko xam-xam tay ji pendant sa temps jamono ji nga xamene tay ji yaangi créer sa parti bis du ñak motax bis bis bilay bis du ñak li tax nga sa parti boobu nga tudde ko bis du ñak ya ko xam bis du ñak tay ñu ak yow teegal sa nday ba nga nek nit bis du ñak mos bilay bis du ñak bis du ñak sa parti bi li tax nga tudde ko bis du ñak dekete ya parce que gunóor nga mbërëngaan nga aw day rek ngay wër mu xaj motax nga tudde ko bis du ñak comme bis du ñak nak bis du ñak ñu teegal sa nday yow jamil ba nga nek nit ak Moustapha Sy junior momu doomu junior bobu yow sa bay ku am solo la ci ku amone solo la ci réew mi dem na ba Amérique tey jii fekk fa ndeysaan ti ti ti tiijaan yi di waxtaan ak ñoom ci patriotisme fonk seen bopp ni leen seen mbokk murit yaa ngi fu ñu nekk tey daa ñu xeex tey ba am fa këru sëñ Tuubaa yéen tiijaan yi di wax ci loo xam ne tey jii ne maanaam gën a dëgëral seen pas-pas yi yéen am ci Seydi Hadji Malick doomi ram ji Ahmed Khalifa ñes nek ci sa ginnaw dila sol dila gemlo sa bay moma ma ñaanali jabar mako ko ñaanali jabar sa bay dan nan bokku man ak mom ben lal Ahmed Khalifa ñes di doomi ram Ahmed Khalifa ñes mo meuna nek nit ko xamne tay ji xam ngeen lu nu koo mu wex tal mais Ahmed Khalifa ñes mom mo meuna sambu bu bu ñuul kuku taxaw legi jekki-jekki cuub ko mu wex tal ab doomu kharam la Khalifa ñes di sa bay taxulaa baax bokk ak Sidi Lamine taxulaa baax taxawaay bii nga am ci réew mi sii Sidi Lamine musu koo am ci réew mi yow Ahmed xalifa Niass musu ko fu bëtt Sénégalais yi am na Sénégalais yi am na ñu bari dañoo dem man sax bay critiquer Sidi Lamine Niass ndax diaboliser yi barke alxuraanul karim naan sii di lamin nangam nangam kër kër jamono ji muy taxaw ak Abdoulaye Wade di dénoncer monument de la renaissance bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey du symbole ci Sénégal mais ñun Sénégal ñoo nekk ay nit yoo xam ne ñoo yor façon doomi xaraam yoo xam ne balaa ñoo xam sa patriotisme balaa ñoo xam sa ragal yàlla balaa ñoo xam bëgg population bi nga nekkal tey nga dee ban suul la ba nga dem ba nga xam ne yow amalatoo njariñ sa bopp amalatoo ko saw askan amalatoo ko kenn ñu door a nag taxaw ay diw ay diw ay diw bu fi nekkoon ay diw nàngam sàngam lu kenn xamul bi muy door a gaañu Iran Ndaw def na vidéo ni démocratie Sénégal dina jooy Sidi Lamine Niass mais ndax Sidi Lamine Niass bi muy dund Iran Ndaw seedeel na ko loolu dañuy bàyyi ba nga dee ñu seedeel la ko man booy Malika mii ñu ngi taxaw daa ñàkk kersa nangam sàngam mais dëgg yi may wax tant que dugalun ma ci biir bàmmeel ba ñeen fukki guddi ma ni teel lu toj tey jii nii maanaam du ngeen taxaw naan laay doon na wax lii doon na wax laa nangam sàngam ay naafiq ngeen ñu bari ci leen da nga gisnit gis nit muy dénoncé lo xamné ne ay mbokam taxaw làmmañ wé ñaaw na tas ku dakk saaga ci réew mi dañuy dem abonné ci passam di ko seetaan kat bu nekk ci réew mi ñi ma gën a ñaaw làmmiñ gën ma ñak war ma yéne ci seen biir pass yi di leen seetaan xool parce que buggu leen ak réussir ci seen bop motax du ngeen gis nit ba japp ni ki ne waxam ji man na ci am réussir bo xamné ne na jariñ sénégalais parce que ci seen bop la tambalé tëggu leen seen bopp bàyyi leen ay tappale bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan ci dëgg néew leen ñu bëggante te ànd ànd ndawle sénégalais yi ñun ni nu mel moo ñaaw jikko yi nu yor moo yées taxawaay yi nga xam ne am nañ ko te mu mënoon a ñàkk tey jii nii maanaam lu ñu dal moo ñu ko dal amuñu plateau médical bu baax système sanitaire bu baax ministre de environnement tey jii bu baax xanaa léegi sax mën nañ cee am yaakaar léegi moom sàcc fa bu ci fi fal ngay sàcc bu la fal kaso nga jëm parce que am topp ba foo dugal dërëmu sénégalais yi di nga ko leeral ay caaxaan baaxul ñu bari tey jii nii maanaam inondation yi di tawee ñu bari di ngeen gis tey ñu jug naan waaw ñiy liggéeyun mais bi fi Macky Sall taxawee ni dugal naa ci mbënd mi sept cent euh, maanaam ñaata sept mille milliards mu ne dugal na ko ci mbënd mi kenn génnul wax mais ñu ngi leen di xaar ba yàlla ci taw ñu ngi leen di xaar ba yàlla ci taw yéen ñi nekk Touba te contre gouverne nguur gu bees gii fi nekk tey jii képp ku fi ñëw taxaw naan waaw Touba ndox mi daañu toj sa cottu ndey ba nga nekk nit quarante cinq milliards yi bin lekkee ndeyam kenn ci yéen waxul lu leer lañ leen wax ñu ngi leen di xaar na ilaahi monsieur le président Bassirou jomaay Diakhar fay Ya, ci no premier ministre bi ma ngi gis doomi ray taxaw nan waw Sonko daa tiit gaa nga koy xaar assemblée monsieur Sassir nangam sangam keureng keur <laughs> yeen Macky Sall yewulen Macky Sall ak ay pexem yewulen Macky Sall ak Antoine Diom yewulen Macky Sall ak Moussa Fall yeen yewulen ah Macky Sall ak wa DG e, eh, ci ndela Fall yeen yewulen Macky Sall ak Ismaïla Madior Fall min jàpp ni Sénégal moo ci ëppoo xam-xam yéen yeewu leen yéen ñooñu yeewu leen eh. yéen yéen a ci seen yooyu yéen ba léegi yéen xamagu leen non yéen dootu leen xam yàlla yéen dee rek leen dee tàbbi safara ndekete yéen dootu leen xam yàlla ci kërug àdduna leen xam yàlla ci kërug àdduna xam nga Moustapha Diakhaté bi mu toogee naan ñu ngi kii jigéen ñi war nañoo góorgóorlu fii ak cinquante ans jigéen dootul jur ku mel ni Ousmane Sonko ñun ñu ñaan ñun ñoo def ay rakk def ay dog ñaan gis nga te yàlla nangu na ñaan googu fii ak cinquante ans yii di ñëw barke alxuraanul karim réew mi ci sunu loxo lay kunu ministre di nga ko nekk kun bëgg nga nekk fi DG di nga ko nekk kun bëgg nga nekk fi député di nga ko nekk kun bëgg nga nekk fi ili la koo tey di nga ko nekk bu soobee yàlla yàllaa ko teg ci sunu loxo parce yàlla moo ne am réew duma ko baax woo sa réew ma bëgg na ñoo baax bëgg na réew mi baax te pare nan pour wàcc ci suñuy bakken moo tax doomu nday yi dee ci xeex bi ah quatre-vingt-six personnes dee nañ ci xeex bi ñu dóor leen ni bal ñu wàcc ñii seeni tànk damm nañ ci ñii seeni loxo dagg na ci ñii ñàkk nañ ci seen bët ñii dugg nañ ci seen biir kër ay combattant yu nekk fii tey dugg nañ ci seen biir kër ba violé ci seen doom yoo xam ne tey xamuñu kuy seen baay barke alxuraan am na ci xeex yi yéen xamu leen sax ñoo leen dàq defar ay ko ñoo leen dàq résister te lim fi taal ci ay grenade lacrymogène lim fi jàmmaarloog sénégalais yi ci mbedd mi gëwuma ni xeex ba ba toog fii wëlbatiku di def ak sénégalais yi loolu kon na ngeen xam ne ñoo leen gën a ñeme xetu kaani gën leen a ñeme xetu poobar gën leen a ñeme aw tàngoor gën leen a ñeme dee lu leen la ku fi wàcc di manifester naan inondation yi dinaan ñàpp sa ndey ba nga nekk nit nga wax ñu tey jii cinq euh, sept mille milliards yi Macky la ni def na ko ci mbënd bi fan la jaar ku fi génn di wax daañu téegal sa ndey lu leer lañ leen wax nekk leen ay gor te ñeme am fit jël seeni responsabilité lépp lu ngeen bu ngeen war a laaj taal leen seen laay fi bu ngeen ko amul groupe whatsapp ya ngeen nekk def leen ci ay débat ngeen di waxtaan bu ko defee seen xel yi di ubbeeku ngeen bokk ci yaa ulil albaabi gi yàlla waxoon borom xel yi yéen laay waxal moo tax ñu am suñuy responsabilité ku fi toogal Serigne Touba te nekkoo si njub fun la fekk ñuy def ku fi toogal Seydi Hadji Malick te nekkoo si njub fun la fekk toj sa cott ndey la ñuy def ku fi toogal maam limaamu mel ni duudu mii ca yof doomi xaram ji quarante cinq hectares yi nga xam ne tey liggéey bi arrêté nañ ko mu jël ay ñoom jalak ay ñoom magu caw dugal leen fa tey ji ak promoteur boo xam ne kenn xamu ko tey ngeen fay dugal seeni camion di jaay carrière bi di dagg bant yi di ko jaay taxaw laayeen ni tey ji nag ci taaral jàmmalaay yow duudu mi fi toog xalifa bi man booy malika fu ma la fekk dinaa toj sa cottu ndey ba nga xam ne sëy naa limaa moom ma digal ma téegal sa ndey doomu xaraam ji nga doon ku mën a yàq nga ab golo ci ñaay yaa ko raw doomi xaraam ji dund nga ba toll nii nga toll mësoo tee un million yu mat doomi raam ji sëñ Ablaay yiir la taxawu la tey jii nga xam ne tey sa kër sax yow buddoon sëñ Ablaay doo am kër parce que laali ma nga bokkaloon ndey ak baay tey ba nga nekkee France ndeyam di taxawaalu sa suuf sépp moo jaay ndeyam nga ñëw génne goon tey ne da nga koy rey xam nañ say secret bu baax a baax man booy malika nag ndawul si naa limaamu laa dinaa jàkkaarloog li muy wax xalifa bi dinaa la diw laa la yorox laan ma nga tooy delloo la sa cott ndey maa leen gën a yàqu fopp ak dund moo leen jaral tey ngeen bëgg a piétiner tey sunu àdduna ak dund dinañu jaral ñu jàkkaarloog yéen ak ak bëgg remerciement yàlla ba ngeen xam ne ndaw ñi fa wuñu barke alxuraanul karim sunu bakken yi lañ leen jaay ñi dee ci mbedd mi ñi nga xam ne ñàkk nañ seen tànk ñi ñàkk seen loxo seen bët ñàkk seen alal seen liggéey gënuñu ñu ndey ñu leen ndey gënuñu leen bàyyi barke alxuraan gënuñu ñoo bëgg réew mi waaw ay caaxaan baaxul tey nii ngeen def ngejj ga ñaaw na torop démb ay lu dina limamu ngeen boole ko ñaanuk imam basir tay taxaw nan waaw loobi euh, projet baangi nek 1 million 250 million waw nangam sangam gën leena yok seen loxo lii benn loobu ndaw la lan motax indi indiwu leen ko ci appel bi parce won nit ñi nit jamalay yépp ngeen di taral ngeen matul ngir yakamti motax ngeen escale ko appel bi baasu ko ngeen gis magu caw ak biiram bu daqaar ndeyam boobu taxaw di wax naan bato bi nii bato bi naa yu kenn xamul parce que bu ngeen koy indi woon ci appel bi gàcce jàpp leen ci mën a baasal tey mille personnes yu taxaw ngeen naan ay fii ñaanu Baye Seydi Thiaw ak yu kenn xamul naan waa diaspora bi diaspora bi kenn nattul xam nga diaspora bi lu ñuy xaar quarante cinq hectares yi ñu lotise ko defar ko ba mu baax tey jii nu laayeen yi ñëw leen lu ngeen am am fi ay parcelle kër la ñu bëgg yun dëkk kër yu nu dëkk la laayeen yi bëgg seen caaxaan yi ngeen nekke baaxul am na ay ndaw ñoo xam ne yoof la dëkk dem nan ba gis imaam njiin tey jii nii maanaam pour mu wax ak khalifa bi tay pour liggéeyu 45 euh, hectares yi ñu tek ko ci yoon bañ ko yakate jóge fa dem nañ ci imam mu dem nañ ci Seydi ciow bu paparan Seydi ciow mu paparan ni len euh, manam khalifa bi neena euh, mu mudu Lamine lan ci fayal ay borom moy li moy li taala ga bëgg def wa Malika rek def sa njombe ba pare tay ji ñew ne alalu malika nga koy fayé nan état de sénégal moma jox 20 hectares malika dañu dakar seen nday ba ngeen nek nit luma ci gobe dina ko gar barké alcorane 45 hectares yi billahi wallahi wa taala ko lek ko tay mu rex du yomb dina toj seen ciotu nday dina leen wer ci aduna bi amul imam amul khalifa amul kenn ayen yi la communauté laayeen la wax yow bu doon lool la yow Duudu Maxtaar xanaa koon bi fi sëñ Ablaay nekkee tey ñoom njoon ñu yoroon këyit yi kay mënoon koo def ci turu sëñ Ablaay caxat kon danga ko fi fekkee ndax diñ ko fi fekk ndax diñ ko fi fekk tey doo ko fi fekk ay caaxaan baaxul duñ leen may jàmm duñ leen may dara yéen gànna mi ngeen jël liggéey bi teg ko ci loxoom tey gànna daa am xaalis bu bu bu tracé lee gànna bu amoon xaalis boobu tey jii ne maanaam seen bande dagal seen bop jël seen recette parce que yéen da ngeen di wax def convention juboo ci mbir mo xam garab yi may dag tay ji ne manam lay genn yeen ngeen bëgg fa ñew ubi fa carrière di tibbu suuf si yeen ay nit ngeen yeen ay nit ngeen te fofu nek béréb bo xamne tay ku fa jënd terrain camion suuf la jaay suuf béton rek nga wara gas sa pompe am sam ndox indi sa béton ak sa ciment parce que souf bi ngay tabaxé mo nga bobu yeen bu ngeen tibé ndayam jaay ko ku fa jënd fan ngay jëlé ay mol foy molé fan ngay tabaxé yeen seen ngeen kenn du wax ah khalifa bi ban jariñ la am bim fi togué ba légui communauté laayeen bu amé ben warna ko fa tagal ma ko wax lenn te ci lenn rek laa koy teg muy maanaam taxaw goo xam ne nga xam ne askan wi bëgg nañ ko kër sëy Seydina Limaamu muy imaam jiin nga xam ne guddig maam Babacar ak guddig Baye Seydi Thiaw ak guddig Seydina Limaamu ak guddig Serigne Abdoulaye yépp moom mooy taxaw nekk suba gi mooy nekk ci kàddu ba bët set ana imaam Maxtaar gisu leen ko fa ku ñaf ndayam la ana Mamadou Lamine gisu leen ko ku ñaf du ngeen ko ku ñaf ndayam la ay Seydi caw yii du ngeen fa gis kenn dunu ñëw ci kaamil guddi gi du duñ fa toog ak yéen maam njiin moomu mën naa ko cee ceppi mais ngi ci des ñëpp fu ma dajeek ñoom daqaar seen ndey ba si bàyyi njiin caw mi naan mooy général moo gën maa ko wax sama baat ci kaw fu ma ko fekk téegal ndeyam sa doom nag li mu wax dégg naa ko boo ko mënee utal ay ñaan te ko nanga ko def dinaa toj cottu ndeyam ba mu xam ne daf maa tooñ yow bàyyi yow laay waxal sa doom bàyyi aboo li mu wax jot naa ci détu ndayam ba laa yéen xam ne dafa tooñ booy malika loolu man maa ko wax video ci kaw ñëpp di ko seetaan sa doom dinaa toj cottu ndayam ba mu xam ne daf maa tooñ si xumaag moom dara yow yaa ñëw ba malika jël fa nday ay teere dégg naa magu naan matérielu jàmmalaay bi lu xam ci lu tax ngeen di dellu gannaaw danaa ko def duma leen may dara ay wuyu ngeen ab tomb amu leen ko ci Seydina Limaamu di fen guddeeg bëccëg naan Serigne Touba ragal Macky Sall ragal Karay Samed yee tax mu dem transhumé nguuram gi bu jeexee mandaam bii bu jeexee vingt cinquant dina ko am meeru Malika am marché tabaxu ko fa dembaka la jox douze hectares gëmloo waa Malika neuf hectares làqu ci ci des ak Demba ñu tabaxal ko fa. estat boo xam ne amul ben recette bu mu jariñ waa Malika ak marché boo xam ne baaxul ci lu toll ci 12 hectares ñu gëm loo waa Malika 9 hectares mu ngi mel ngeen joxe seen 10000 francs ba pare topp ci naan ko juróom rek laa la laaj juróom juróom yéen bon ay nit yu yées ngeen man nag duma leen may dara lu ngeen ci bañul bañu ma ko ci lu ngeen ci bañul pour alalu Malika barke karim bañu ci yeen ñi taala ga jaga yag na leen ko wax mu leen di jox ay terrain surtout yéen wa keur seigne abla yi nek Malika magu ci bi leen di jaayal ñambe du wat terrain yi mbay lay caw du ko wat Mamour caw du ko wat Aline jagn du ko wat Seyna lay du ko wat bay caw du ko wat Cheikh Mbacke du ko wat Seyna allah ji ga Gadiaga terrain terrain Cambérène ko xaliss bi yow nak Seyna lay do japp parcel ndingla jaay ndey ala rasulullah